moom Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne mooy borom màggalu Kazu Rajab ñu teewe fi ci ndigalam di ñaan suñu borom bàyyi ko fi te mu ànd ak wér ñu ñëw nag ci ndigalul Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ne mooy jëwriñu màggal gi yor kàdduk sëriñ bi jóge ci ndigal lu jóge ci Cheikh Mahamadul di jëwriñu Cheikh Abul Baraka ak Cheikh Mahamadul Mourtada mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Abdoul Fattah di ànd ak moom liggéey bi naka jekk ñu ñëw ànd ak imaam Cheikh Ahmad nga xam ne moo waroon a yëkkati kàddu gi maa ngi koy wax léegi ne ko bu ma ñemee ne bu ma ñemee woon na abbu ayab alquran boobu wax ne wa axi haroun wa afsahu minni yaakaar naa ne moo waroon a moom moo war a jël kàddu gi moo ko moom moo ko gën a man waaye kon moom itam ci ndigalam nu ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñooy sëti Cheikh Mahamadul Fadil yi ak ñi nga xam ne ñoo yor organisation màggalu Kazu Rajab ak bokki taalibe yi ñu ñëw teewe si ndaje mu tedd mi ñu yëkkati nuyoo boobu ak cant googu di ko teg ci loxal gouverneur mu tegal ñu ko ci mboolem service yi nga xam ne ñoo teew fii waaye nag mu yëgalal ñu ko ca ministre de l'intérieur ba ci président de la république di ko sant ci kàddu yi mu yëkkati di sant itam kàddu yi ñu fi dégg nga xam ne daanaka mën nañoo wax ne li ñuy am rek mooy rafet njort am yaakaar sant ci li weesu woon te xam ne li ñu fi dégg bu suñu borom mayee kàttan bañ jëfe ko alhamdulilahi rabbil alamin rek la ñuy wax te itam wax dëgg tàmbali nañ kon ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla mottali te may nuñ yàkkoo teew at yu bari tànd ak jàmm nu ñëw nag ci bis boo xam ne dafay bis bu am solo di bisu lislaam di bis boo xam ne xew-xew bu màgg daf cee xewoon teraanga ju rëy amoon ci xar baax ak kéemaan yu màgg itam xewoon ci muy al israa wal miraaj sunu boroom subhaanahu wa ca màggam ga ca tedd ngaam nga xam ne dara tawu ko mu defal ci taraanga ak màggal jaamam ba ndax di la wax jaamam bu tedd ba di sallallahu alayhi wa riñaane ko riñaane ko min al masjidil xaraami ila al masjidil aqsa allazi barak naa xawla ba noppi yéege ko mu dem ba nga xam ne fa mu àgg mën nañu wax ne kenn mësu fa àgg sidratul muntaha fa kaana xaaba qawsayni aw àddina waaye fa awxaa ilaa abdihi ma awxaa teral ko fa won ko fa yeggale ko foo xam ne kenn mësu faa yegg waaye jox ko sérité boo xam ne itam mooy sunu taxe ñun jullit ñi àdduna ak àllaaxira te mooy julli yi juróom bis boobu itam cheikhuna al xadim radiallahu nettali ko wax ko ci lu bëree bëri ci ay xasaayidam fi mu jaar la ca xew xat xaasa faqra faxra min xiini asra bil mi jahra wax ne itam ba mu dem romb na yonent yu tedd yi kenn ku ci ne fa sa daraja toll nga màggal ko teral ko tàggutoog moom mu jàll ba àgg fa borom bi subhaanahu wa taala mu defal ko loo xam ne su koo defal kenn kon bisu al isra wal maraaj di bisu màggalu kasu rajab bisu jullit yëpp la bisu humanité la ndax humanité ak l'islam la sunu borom teral te bis boobu la joxe l'islam gi nga xam ne mooy mooy tex ak nit ñi àdduna ak alaxira sallallahu alayhi wa sallam ci yërmandeem mu sàkku ci borom ba mu woyefal ko mu wax ca njëlbéen nga mu doonoon juróom fukki julli nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil mi ñuy fàttaliku moo ko daan nettalil boppam moo daan jàngalee lislaam julli di jàngale ponki lislaam waaye daf daan nettali sax julli ni mu doone woon juróom fukk ba ni ko sunu borom wàññee waaye di ko dugalaat nag ci biir yi li ñu tudde rawaati bi nga xam ne mën nga koo jëfandikoo bu la soboowaatee ci sa coobare waaye ku yem ci juróom yi itam sunu borom dana la defal euh, tuyaaba ja nga xam ne moom la tegtal woon ci juróom julli ya moom moomu nag sunu borom baaxenu mu wàcc ci bis boobu bii di Kazu Rajab mu feeñ ci jamono waaye nag méngoog bis bi méngoog weer wi ndax rajab ci boppam rajabul fard rajab shahrullah nga xam ne naka jekk dafa amoon teraanga yooyu yëpp xewaat ci ak ngëneel li ci am ak màggaay gi am ci rajab buñ ko doon wax fii ba ngoon du jeex waaye Cheikh Mouhamadul Fadil nag sunu boroom feeñal ko ci guddi googu yi waaye mu méngoo nag ak guddi gi ndax defe naa ne rek ren ji waxtaan wi nga xam ne seeti Cheikh Mouhamadul Fadil yi war nañ koo def ci màggal gi def ko muy muy muy tem tem tem bi nga xam ne moom la ñu wax war ci màggal gi yëpp dañu nafaraat lislaam waaye di nafaraat julli lënkale ko nag ak Cheikh Mamadou Fadil muy diggante Cheikh Mamadou Fadil ak julli ñoo bokk anniversaire mën nañ ko wax waaye nag mu tabaxal àggaleel Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu nekkoon itam imaam di jiite juma tabax juma yu baree baree bari waaye bu ñëwee ci ponk bi nga xam ne mooy woor sëriñ bi fonkoon ko lool àgg na ci daan bu koor gi masaan ñëw ba mu koy soññee day wax ne koo xam ne àdduna dalaa dalaa jàpp ba jafe wala tànk-tànki jamono na nga ñëw fii ñu jox la loo woore kon noonu la fonke woon ponk boobu bu ñëwee ci xaj màkka nga xam ne ku ne xam ne ne bokk na ci bëgg-bëgg di Cheikhuna al Xadim radiallahu amoon ngir dem jooxe ji faraja farataam waaye siyaare ji soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam 1927 bi ku baax ki làqoo làqoo 1928 la Cheikh Mouhamadul Fadil ànd ak maam Cheikh Anta borom gaawaan ak Serigne Alhaaji Tàkko Mbàkke ak mag ñu baax ñoo ñu ma àndaloon ak Serigne Mbàkke Bousso dem joxe ji faratee xaj waaye àggalee nag mébétum Cheikhul Xadim radiyallahu anhu joojee ku ne xam na ne asaka Serigne fàll ku ko fonkoon la ndax ab liggéeykat la woon tool yu bari la sant la sanc ñu daan fa bay ngir àggale jumaay Cheikhul Xadim ji ak dimbale jaam yàlla yi waaye bu may mi masaan ñor day jàng ay alquran boobu wax ne wa aatu xaqahu yow ma xasaadihi wala yow ma xasaadihi ñu génne asaka ji mu daan ko daan ci joxe misaal ci jullit yi ngir ñu fonk asaka waaye da ko daan jëf moom itam kon noonu lañ fas yéenee nafarewaat kon Kazu Rajab gi nga xam ne mooy anniversaire ul islam mooy ponk bi ci gën a màgg gannaaw shahadatay di nga xam ne asalaatu imaadu diin ci la wàccoon noonu lañ ponk toppewaat nag ponk yi di ko nafar benn benn waaye bu ci ne ñu lënkale ko ak Cheikh Mamadou Fadil bu ci nekk ñu mën a teg baaraam ci loo xam ne noonu la ko doon defee noonu la ko fonke woon noonu la ci doon soññee waaye nag ñu baaxoo def bu jublusee see bi dafa daan soññee ci ñu jàng alxuraanul karim ndax ku ne xam na ñaanal ku fi bàyyi ko ni mu toll ak njariñ danam toll borom xam-xam yi dañ koy misaal ci mel ne nii ñuy yónnee ay koppar ci jamono ji booy def rek mu di ko jot booy def rek ci saa sama di ko jot am na sax ci ci ci ci loo xam ne mën nañu wax ne asar la ñu di ko nettali koo xam ne dafa mas a romb ci ay barab fekk ñuy xëccoo xëccoo bu metti mu fekk itam koo xam ne dafa taxaw fee jàppi loxoom ne cell bokku ci mu gis keneen koo xam ne dafa mel ne ku bëgg li wala fi wax maare maa ëpp loolu Cheikh Ahmad Rifaay mu daal di yàlla defal ko kashfu mooy kashfu suñu borom mën na ko defal jaam bi mu toog ak nit di gis loo xam ne ñoom duñu ko gis loolu nag ñun sufiyank yi noo ko noo koy wax na suñu borom won ko mu gis mu laaj leen waaw yéen lu xew ñu ne ko kii taxaw jàppu njàmburam dafa am ñu nekk ca àdduna di ko ñaanal mu doy lool lool ñee di xëccoo nag dafa am jaay yàlla bu fi jaar sànni leen jàng sóoratul ixlaas sarax leen ko moom la ñu xëccoo nee mu daal di waaw kii toog bëgg moom ba mel ne ko maare ñu ne ko kooka dafa dafa caa fëkk dara maanaam bu ñu doon misaal wenn xaraf dupp néeg ba ca kaw nga xam ne matul sax waaw moom la ci fëkk moo tax bu mbég mbëg moomee loolu moo tax kon ñaanal ko fi bàyyi ko am solo Cheikh Mouhamadou Fadil daan soññee ci loolu kon Kazu Rajab gi bu ñëwee sëriñ bi di soññee ñu jàng alquran def ko addi yi sallallahu moom la alquran wax ci wàccoon ci moom waaye def ko Cheikhuna al Khadim mi nga xam ne mooy liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te léppam doon alquran waaye defe ko nag Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moom itam léppam alxuraan la woon ndax gis nañ ni mu fonke woon jàng alxuraan bindal sëriñ bi kaamil yi du jeex waaye daan teral borom daara yi daan leen daan leen daan leen dimbali ba ren bokk na ci waajtaay wi sëtam bu ñu wax abul baraka ñëpp xam ko moom itam ci alxuraan mu taxawal ci musaabaxa maanaam maanaam euh, concours boo xam ne dañ ciy jàng alxuraanul karim ku ca raw ñu wutal ko ay neexal te loolu daf ko bëgg a ci maamam ja am na kilifa gu baax ko nettali ne ba mu nekkee ci daara ja sëñ Fallou dafa mas a ñëw nee bi mu ñëwee dong yi nuyu ko mag ñu nuyoo ñëpp waaye dong yi ku ne mu laaj la fu saw saar bi ñu waxee fu seeni saar toll ba noppi am ci ku ko woon alliwaam mbind mi rafet lool ñu dem ab diir ñu gisaat oto bu ñëw ci dëkk bi indi ñaari walis walis bu fees dell ki yére Cheikh Amadou Fadil ne ko moo ko jox sëriñ daara bi jàngale daara waaye wenn wali nag moo ko be moo ko jox taalibe bii di seen tudd sëriñ naa ngir soññee ko ko ci àll ju uh, kawe ji ak mbind mu rafet meem ko wonoon bu ko daan nettali def naa at mooma ca la ñëpp tàmbalee di mokkal di bind mbind mu rafet xoola boobu jàngale loolu kon bu ak njabootam bëggee taxawal ab ab ab ab prix boo xam ne dañ koy tuddee jaay Cheikh Mahamadul Fadil li tax tahfiz al Qur'anil Karim ba di loolu kon dafa ñëw bokk ci màggal gi di liggéey bu am solo ñu di ci fàttaliku nag sëriñ Maam Moor nga xam ne moom sunu kilifa la doonoon ko daan taxaw taxawaay bu rafet ci kër Sëriñ Fàllu ak ci diine ji yàlla dogal moo daan toppatoo moom yi ndax fi mu xam nga nañ ne daara yëpp tàmbali nañ di jàng ay kaamil yoo xam ne lim bi kenn mënta xam nu mu toll daan ko bi kon moom itam ñu dugg fàttali ko di ko ñaanal waaye bi mu nu itam sëriñ bi dénk liggéey boobu Cheikh Mahamadul Xabbaan moom itam liggéey boobu ba tey mi ngi koy wéyal ni mu koy wéyale ci daare alxuraan yi kon képp koo xam ne jàng nga ci euh, ci màggal gi alxuraan nu lim bi mën a toll ñu ñu fexe ba Cheikh Mouhamadul Xabbaan yëg ko kon daal ñu ngi sant di gërëm di bañ a guddal di ñaan sunu borom may nu nu teewe ko ci jàmm ak salaam te sëriñ bi nee na bu ñu ñëw nañ fas liñ bëgg te xam ne sunu borom borom yërmande la te nangul na Cheikhul Xadim nangul na Cheikh Mouhamadul Fadil kon fële ko yitte ju fa nit indi ak lu mu mën a doon nañ xam ne lu néew ci borom bi subhaanahu wa taala la ci mu faj ko kon lu fa indi yàlla ko yàlla faj kon buy ñëw lépp lu ñu bëgg nañ ko faj ñaan ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te fekk ko at yu bari lool te yàlla fayal ñu Cheikh Mahamadul Fadil fayal ñu Cheikh Mahamadul Fadil te fayal ñu euh, sëriñam ba di Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waaye nag may ñu nu topp sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ñu indil xéwatul islam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu